mooy Sénégal nanu xam ne discipline bu mel ni làmb amu fi popularité bi làmb am hmm. football local amu ko hmm, hmm, popularité bi làmb am ba amul benn discipline sportive bu ko am au Sénégal nan leen ko respecté nan leen ko jox li mu moom amul benn discipline sportive booy tëgg ni da koy jaay per per vue ñeenti nit di ko jënd amul làmb rek la pour ñiy diingat làmb lii la yàlla dogal. Hmm. ci sunu réew boo demee Amérique NBA moo fa man boo defee perpe perpétué ñëppay jënd. Hmm. boo demee Angleterre football la fa man boo ko jaayee dañ koy jënd mais nanu nangu. Hmm. nanu nangu sunu cosaan la ñoo ko moom état bi nag ci jàpp. fii mën ngeen ci jaar suqali chômage mën ngeen ci jaar suqali koom-koom mën ngeen ci jaar suqali sport bu nu ko xeex bu ñu ko xeex boo ko xeex yaay perte. GR kontaanee Kona c'est le bon gën a partagé gën a abonné vidéo bu gàtt rek ci ci làmb ji li sama grand Mouhamed Aidara di wax dem naa ca làmb ja lamb bu sàjjee ku ne xam na ni dëkk bi day yëngu donc di leen bëggee di leen siyaar di wax ni rek internautes yi ngeen gën di abonné di gën a partagé euh, jàngatu làmb la jàngatu après lamb ndax tàmbaloon naa leen ko euh, yéen patriotes yi bëgg làmb nga xam ni Sénégal ñëpp bëgg làmb Eh, tamalon na len ko defalon na len jangat ta jakarlo bu ndeuk ba ba di yuxu eh, ba rew mi yep tit di wo telephone supporteru Balla gay deye ya ak ku ne ci rew mi eh, tafat bi Balla gay nan ko dagay dak sa stress amon na luma ci waxoon video bu gatt ta lama ci ca waxoon daanaka la lamb ji demee motax man xaw tuti ma meuna xamna ni serigne yi di jema graw graw lu moo jeme tuti ci lamb war ko meuna man non dama lay wax ndax dama xam lamb donc nak dama len di damay tontu suma baye bekay Mbaye mu mu moom Baye Bécaye Mbaye mu mu xam fan la mbir yi toll ak fi ñu nekk. kàddu yi Baye Bécaye mbay yëkkati di gaaruwaale di utal làmb ay noon di wax nit ñi dañoo dañoo war a bëgg làmb dañoo war a jàpp ni moom moo gën a bëgg nit ñi làmb. Père Bécaye am benn problème moom dafa jàpp ni làmb propriété privée la jàmbaar nga def nga lu ne ci làmb ci làmb nga bay sa waar làmb bokk na bu dee cent pour cent làmb def nga ci cinquante pour cent nangu nañ yow ak la 2STV. mais Bécaye sa communication bi muy utal làmb ay noonu làmb amul noon xam nga li nga war a def des vaisselle sale ngeen jéem ko laver en famille làmb li koy yàq mu ngi ci biir làmb encore une fois du tëgg làmb stade bi fees ñaata làmb ngeen di tëgg stade bi du fees maanaam il faut nga calculer loolu ñaata mbër ñooy bëri stade bi di fees soo ko defee sa juróom soo defee sa sa cinq baaraam du ko mat te ñaata mbër ñoo am kon boo ko analyser noonu da ngay daanu mooy que làmb mais communication yi ngeen di def moy tax nit ñi di jëppi mbeur di jëppi képp ku nekk ci lamb il faut que nga xamni nit ñi bañuñu làmb nee naa le président Diomaye fay soko ko làmboon ne coppe tànk bi mu teug la motum jolal ndax séeréer la il ne faut pas essayer di def communication yo xam da ngay ut ay discrimination di utal sa bopp ay non di victimiser wu làmb kenn bañu ko père Bécaye au contraire ñi nekk ci lamb di doxal doxalin wu ñaaw ñooñu ñoo bañ lamb ñi ci ut sen intérêt yow làmb mëno ko bañ lamb mo la defal lepp yow sa bëgg lamb du feñ parce que yow lamb nga am moy sa métier mom nga am mom nga ubi set internet mom nga am bantamba mom mo lay may mais dafa am ñoo xamni ñoy def ci lamb di sonn ci lamb te gisuñ seen bop ci lamb te tay lañu gëna bëgg lamb kon yow di won ni yow lamb ko gëna bëgg nit ñi erreur la gëno ñoo bëgg lamb dañ ci am intérêt lamb sa intérêt daf ci nekk sa gagne pee daf ci nekk mais lamb bari na ñu ci sonn di ci def alal te musuñ ci gagne dara te ñooñu ñooñu tey la ñu gën a bëgg làmb kon bul utal làmb ay noon Sénégal amul kenn ku fi bañ làmb mais munoo éviter Baye Ndiaye boo ko téléphone mu wax ay waxi dof nit ñi tontu ko ngeen foog ni nit ñi làmb la ñuy bañ parce que ñoom ñooy communiquer xamal li ma bëgg mooy communication yi làmb di génnee ngeen di ko dénoncer man kenn gënumaa bëgg làmb sama àdduna yëpp si làmb laa ko xeex sama àdduna yëpp dama ko dénoncer mbër dama ko kaasal mbër ngeen di ma jëppi di ma lu ne ngeen ma ko sama àdduna yëpp dama ko toog di dénoncer lu doxul ci làmb di dénoncer li nga xam ne baaxul mal comportement bi ngeen am conflit d'intérêt bi nekk ci làmb mais xoolal tey li làmb bëgg def caatu yoof per bi Bécaye làmb moo bañ boppam caatu yoof di jeune lutteur xoolal tey makan ak yéen CNG bi ni ngeen bëgg a jaayee doole ki nga xamante mooy caatu yoof te ñëpp xam nañu caatu yoof moo nekk ci dëgg noonu ngeen def mobile noonu ngeen ma def man nii noonu ngeen def ñaata mbëri làmb yu nekk ci làmb CNG bi manager yi promoteur yi complot jaay ko doole nangu licence am wala ñu jaay ko doole génne ko ci làmb far force ñaata mbër ñoo fi blessé amoon ay licence ñu leen di dagg assurance làmb fayu leen benn ci kas kasele kase euh, Diop mooy ki nekk Mbour nekkoon mbëru chef de l' état mbëru mbëru équipe nationale dafa mujj paralysé làmb jëlu ko en chargé kon développement ak doxali ay lamb ji sport football amuko lolu nan ngeen ko mettre en valeur valoriser ko nous mu gis ci sen bop lolu mo wara doon réflexion au lieu que di toog di nous stade bu fess légui stade bi fess na après nous ñu génnee alalu jàmbur yi stade bi fess na après jeunesse bi ci ñew conscient wuñ suñu génnee Nous ngay ut am ngay ngay légui une façon jeunesse lan la ko nit di doyé bu lamb yow ya ci contane promoteur bi mais population Sénégal dañ ci tit ndax bu lamb ji tojee lan leen mëna fekk après lañ ci mëna dund après ban message ngeen mëna jallalé ci bir lamb ba jeunesse bi ñew ci bar lamb ñu am ben esprit sain ñu am ben esprit conscient ñata message ngeen mëna jallalé ci bir lamb mais non même ku ñew sax di jëma jallalé message bu baax ci lamb da ngeen koy rayé ne ko doo mbër benn ngeen ni ci man ku jëma sensibiliser di jëma wax lu baax di jëma eh, wax lu tegu di jëma tek lamb ci yoon sax da ngeen koy méré moy le ministre de l'intérieur def ñëw ne leneen di jéem organiser nga invité Baye Ndiaye mu wax wax ju rëy jooju yow ngay magu làmb yaa ko waroon a corriger ne ko Baye Ndiaye waroo waxee nii appel à l'insurrection nga def appel à la violence incitation à la violence wax wax ju rëy ci làmb joo xam ne dafa war a am mu koy méngale ak Joola parce que dañ ko nañ ko organiser léegi nan la état di leen jàppale état bi ñëw bëgg leen organiser ne leen sport bu nekk dafay am manifestation bu nekk sax dafay am heure bu muy tàmbali am heure bu muy yem loolu c'est le minimum ci mbir moo am organisation mais yéen nanguwu leen ñu organiser leen nanguwu leen ñu jubbanti leen ba pare di bëgg di def lu leen neex léegi nit ñi suñu toogee di wax ñeen ne dañoo bañ làmb lan la ñuy bañee làmb ban problème la ñu am ak làmb mais làmb moo bañ boppam nitu làmb moo buggul boppam moo respecté bul boppam te yéen fekk respecté wu leen seen bopp xam seeni góom di koy waxante dëgg teg mbiri ci yoon teg ko ci organisation bu leer CNG bi teguwul yoon mais comment se fait-il que Aziz Ndiaye il est un promoteur moom mooy promoteur moom ak Baye Ndiaye mais Aziz Ndiaye c'est un membre du CNG tey xoolal Aziz Ndiaye li mu def Modou Lo organise fi empereur Balla Gaye bu nekkoon roi des arènes lu tax ba Balla Gaye nekkee roi des arènes Aziz Ndiaye organise wu combat empereur lu tax defu ko mais Modou Lo nekk roi des arènes am nañ ay contentieux Modou Lo ak Siteu ñu ngi war a bëre am na Siteu contentieux mu ñëw contrecarrer leen organiser combat empereur est discipline bu am bu am organisation est ce que dina amee noonu Aziz Ndiaye il est membre du CNG Aziz Ndiaye il est un agent d'un lutteur moom mooy agent wu Balla Gaye 2 Aziz Ndiaye il est un promoteur lii ngeen war a wax lii moo yàq làmb ñuy jaayante doole di ëpp ku nekk ëpp sa morom doole néewal ko ngeen di parparloo du ngeen waxante dëgg loolu mooy mooy mooy maalu làmb làmb mooy noonu boppam kenn noonowul làmb sénégalais yëpp bëgg làmb muy jigéen muy góor mais li ngeen di def te jaaruwul nit ñi dañ koy wax man maa bañ lamb judd ci làmb yaroo ci làmb judd ci keppaaru Mansour Diop ah judd ci keppaaru Pep bu sun jéeri laay jégal yar ma ma judd ci bëri mais am ay conviction ci lamb di ko wax moo tax ngeen génne ma ci làmb te bëri naa ci ay morom ñaata jeunes ñoo nekk di sonn ci làmb di ci ut di ci ut mënuñoo am lu ñu bëgg yow ngay ndamoo ay Balla bu bëri stade bi fees te loolu bu amee ba am ay six mois ba six mois lay am kenn waxul làmb dafa bon kenn waxul lamb bëgguñu ko kenn bañul lamb mais dinañ leen wax seen comportement bi ngeen am vis à de la société baaxul ni ngeen di doxalee baaxul organiser bi ngeen organiser làmb baaxul da ngeen di discriminer nit ñi yenn mbëri rek ñoo ci gis seen bopp ñeneen ñi gisuñ suñu bopp seen bopp yenn médias yi ñoo ci gis seen bopp comme ça genre yaa ngi ciy gis sa bopp yaa ngi ciy naru da ngay tëgg ay làmb yow Bécaye Mbaye daanaka yow ménager nga te yow waroo am waroo waroo am profil boobu communicateur nga chroniqueur nga si làmb nga nga a yem mais yow da ngay dox ay combat am ay combat yaa koy taxawal bu ñu fayee mbër bi cinq cent mille nga jox ko deux cent mille loolu yëg nañ ko yow Bécaye Mbaye ak ñu mel ni yow tey boo toogee bëgg a foog ni nit ñi dañoo bañ làmb parce que ñu ngi dénoncer li baaxul parce que ñu ngi wax ni làmb communication bi ñu ci def baaxul parce que ñu ngi jéem a sensibiliser non nit yi bañuñu làmb amuñu benn problème ak làmb mais pratique yi am si làmb tam baaxul loolu la ñuy dénoncer te yéen ñi nekk si làmb yéen ko war a njëkk a dénoncer il faut que ça soit clair bul utal làmb ay noon kenn bañu fi làmb mais nag di leen jéem bëgg bi ñu bëgg làmb sax moo tax ñuy wax ni lii doxul yow communication bi Baye Ndiaye def dans un pays sérieux nit dina taxaw di ko def ku bëgg réewam nit ku normal dina génn def communication te yow yaa yaa ko doon interroger amuloo benn yoon boo ko boo ko nee na noppi te pourtant bi fi xale boobu doon tudd Modou euh, euh, euh, Ousmane Sonko ci sa plateau da nga ne nañ couper micro bi Baye Ndiaye mii moo jaroon a couper micro parce que kuy wax lu mën a taal réew kuy wax ni lii bu amee dinañ xale yi dinañ def nangam daanaka daal di woo xale ci violence. ndax lan ndax say propre intérêt pour man Baye ndjay mo jarono couper micro ta te ko dañ ka deglu bam wax ba paré ngay and ak mom sax ci lim wax ay conneries la wax nit ñi nak loolu lañuy dénoncer kon Père bekay ngir yalla ak yonent bi jëlal conscience ngeen bàyyi xel ci nit yi liñ leen di wax ngeen wat jubbanti lamb ji ndax ñepp mën ci gis seen bop amateur mën ci gis bopam mbeur mën ci gis bopam mbeur mu mag mën ci gis bopam mbeur mu ndaw mën ci gis bopam chroniqueur mën ñepp mën ci gis seen bop mais ni démé ni dafa démé ben côté mu moo waral nga ciy gis lii ci am yëpp te ñaata mbër ñooy sonn ci làmb amuñ ci dara ñaata mbër ñoo ci nekk di sonn loolu ngeen war koo réparer état lim leen defal defal ko benn sport yéen état lu mu defal làmb man balaa may dee ñu naan état dafa war a jàpp ci làmb yéen ñaata sport ñoo fi nekk amuñu fu ñuy defee seen sport yéen am ngeen arène nationale ñu ubbil leen ko ñaata ñaata million la ah, làmb la la arène di jël la état di jël di ko def ci biir làmb yéen ñii ñëpp da ngeen a defaru bureau ministre bu ngeen fëgg mu ubbil leen jamonoy jamonoy système bi yéen ñii ñëpp ministre bu ngeen fëgg mu ibbil leen ñaata mbër nga fi gis ay ministre recevoir leen fii mbër rek la ñuy gis président de la république recevoir leen Modou Lo ak Balla Gaye président de la république Abdoulaye Wade recevoir ne leen palais kon yéen làmb lan ngeen bëggati leen amul lu leen état defalul état da leen beral rax loxo kon da ngeen war organiser wu fexe làmb ji ñi ci bokk yëpp di ci gis seen bopp moo gën yéen ngeen petoo ko aakimoo ko di ko jëriñoo ñeneen ñi di dekk ci ginnaaw di dee bu ngeen jugee nit ñi bu naan ay làmb moo fi ken kenn waxul làmb neew fi mooy mais bu dee mobiliser te jeunesse bi muy mobiliser conscient wuñu jeunesse bi ñuy amuñu benn amuñu benn lu baax pour sen société suñu jugé dañuy nuisible à menace lañu doon pour sen société amu sens il faut ngén sensibiliser jeunesse bi di jàkk ci lamb xamal leen ne làmb fola ak ré di jàllale ay message suko défé gouvernement bi dina am message yu bëgg a sax pour wax ko jeune jeune yi day ñëw ci lamb jàllale fa message kon yeen ak gouvernement yeen ak sénégalais yi amul leen problème lamb mo am problème bopam nit yi di leen ko wax ngeen bëgg ci gëm sen bëtt ku leen ko wax ngeen foog ne dañ leen a bañ nit yi ñu lamb dañu jubbi ci bëree am duñu ay complexé ñun fu ñu mën a nekk maa ngi ñu ci digg Amérique di wax ci làmb fu ñu mën a nekk suñu suñu suñu coono suñu koccoo suñu culture dañ koy représenté mais nag li nekkul dëgg ci biir làmb dinañ ko wax communication yu baaxul yu mbëri di génnee communication yu baaxul yi ngeen di génnee di ko teg ci penc bi dinañ ko nee du dëgg il faut que ngeen nangu ñu loolu donc ma ñëw nag analyser tuuti rek la du ma si sax analyser la ma waxoon rek laay tegaat ci diggante Tafatine ak Balla Gaye ñu xam ne xam làmb ak gëstu làmb ak dundu làmb dafa am te ñun dañ koo xam gëstu ko dund ko xam mbër mu ne ma may leen tuuti la ma ca waxoon ñu dellusiwaat. mbirum ponkal laat dafa rëy loolu amateur yu bees yi lay jaaxal mbër mu rëy ponkal tafaatin doomu ñay la nii la mës a toll xanaa gën a rëy rek kay waaye rëy moom tafaatin la fekk baax kon te bu doon rëy kese Bombardier kenn du ko daan kon rëy baax na mais nan nga rëyee ak lu la rëyal ndax bu dee rëy kii dafa rëy building la noonu la rëyee woon en 2013 Balla Gaye duma daan làmb laa leen di wax kon tafaatin yàgg naa rëy ndax rëy rek bu la taxee jóg nga bëgg gis ku rëy kese kese rëy rek rëy boo dajee ci tafaatin gis nga ku bu la neexee mën ngaa dëpp bu dee rëy rek tafaatin xabru la xabru comme xabru xabru mooy fi ñuy denc néew yi mais sëriñ si xabru yi noonu la toll mooy sëriñu mag yi loolooy xabru kon tafaatin xabru la monument la waaye ndax monument boobu doy na pour daan pour téye làmb ji ndax tafaatin daan Balla Gaye warul nekk objectif tam téye làmb ji bu dee xam na mooy kan dama naan doyul pour mu téel làmb ji mental ndax Balla Gaye 2 mu ngi naan ko da ngay dàq sa stress Balla Gaye dë dafa napp tafaatin jàpp na ni ba léegi napp na ko tafaatin nag fekk stress boobu Balla Gaye di ko wax mënu koo dindi du ko daan mu mu munti toll kon tafaatin mooy favori ci làmb ji boo ko xoolee ci diggante ba ñu bëree ak léegi seen jaar-jaar waaye nag Balla Gaye 2 su paree physiquement ngandaayu tafaatin munu ko jaaxal ndax daa mën a bëre gis ngeen Pomme du New non dama lay wax ku ne xam na ni ah, a tafaatin ak Balla Gaye 2 dafa am benn stress buy daw ci diggante bi li ma leen waxoon rek maanaam nangu naa man ku ma daan mais ku ma duma daan duma ko nangu ta tafaatin day nangu Balla Gaye duma daan ko dañ koo dóor bañ nangu ko ci ay loxoom te daane woko galat kep ku taxaw naan tafaatin Balla gay galaj lako daane waxo deug dëgg da koo mën duma ko daan ko te beure wa bëriwaatoon suba mu duma wat ko daan ko len complexe bobu mentalement il n'est pas bon mentalement tafaatin bu doon mbeur mu man bon bax mentalement heure bi moy téye lamb ji il faut qu'on soit sérieux tafaatin bu baxone mentalement mentalement lim yor ci beure doyna na tafaatin jaru sax muy meuna yenn beure yu bobu muy def rek na pour mu ub lamb ji ak loxoom yu neex mais mentalement Tapha Tine il n'est pas prêt encore une fois psychologiquement Tapha Tine il n'est pas prêt kon fii laa doon waxee ma ni leen Balla Gaye de rëy gudd ngande taxul nga daan ko te bu amee doole Tapha Tine mënu koo daan parce que bëre bi muy bëre intense bi muy intense ak complexe bi ko Tapha Tine complexe pour mu décoder bëre Balla Gaye ba génn ci day jafe te teguñu ko woon fenn fu dul suivre ñaari bëri yàgg suivre làmb kon képp ku ne Tapha Tine dañ koo jekk ba nga ko dégg mu naan ay ba léegi may wax nii sama bët yi gisul sa bët yi ni muy gisee Balla Gaye bu la jàppee dóor la bañ nangu ko ci ay loxoom nooy gisee doo gis mais ci biir géew bi yaa ngi doon gis ndax dàq nga ko plaqué mu lalli ko dóor nga koy épercule mais dóor nga ko benn épercule mais yàlla nga amu ci kaw Balla Gaye Balla Gaye duma la daan la parce que dafa mën a bëree ba pare li muy bëree intensité bi mu àndal yow attanoo ko maanaam complexe bi dox sa diggante ak Balla loolu moo dox ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye ba Balla daanu ko te du yéen kese mbër yi complexe Balla dafa bari ci biir géew complexe laa la wax complexe Balla Gaye ci biir géew dafa bari du yow kese Tapha Tine bari na Gris Bordeaux bu complexe wuloon Balla Gaye da daan keroog ndax du koo dóor ba mu tëb première ba da koo song song bu neex mais complexe bi am ak tamit benn genre benn genre bàyyi xel bi ngeen di bàyyi bàyyi xel Balla kon képp ku naan tafaatin Balla Gaye da koo jekku si gàllaaj jekku ko ci gàllaaj jekku ko benn yoon du ko mën duma ko daan ko lii moo am parce que tafaatin dafa am problème mental bi ko fit ëmma seen jàppee courte masse dugg ci biir garde gi dóor ko ay coup ba tafaatin dem ardo jaxasoo rëpp mais ngeen xam ne nag tafaatin am na lu mu dese njaw desoo xamin salaat moom ñax bokkuñu ku ko weddi xoolal jëndal bineegar nga nga mélangé di nga xam ne salaat du ñax kon mbër yi dañoo uute ni sama juróomi baaraam yi uutee ku nekk sa moroom la mu mëne am na fu sa moroom tëlee te Balla Gaye yàlla def ko dogali bu fekkee am na doole genre tafaatin yi mënuñu koo daan ak nu ñu mën a toll bu dee am na doole yàlla moo ko may bëre muy bëre gauche di bëre droite di mbootee pied gauche di mbootee pied droite Balla Gaye day bëre pied gauche day bëre pied droite moom laa gis ci Sénégal ci làmbi Sénégal moom ak pakala bi nekk Amérique sama xarit pakala rek laa gis ak Balla Gaye mbootee pied gauche di mbootee pied droite pakala mi nek fi champion wa def na lu ne ci lamb day mboté gauche di mboté droite à part mom balagay kon lamb du tiaxan dafa am yenen réalité yu nek ci bir du galaj du dara nak balagay gën ko bax mental indil ko lam ko indilon bële passé duma ko dank kasse kon ñaar juñu yo may mel kula neex mais père kay baye xel ci luma la wax gëna partager gëna abonné def